bis dina ñëw ñu sang la sang la yow gas ba mu xool def ci bàmmeel moo tax loo bari bari alal lu kër yi bari bari lu mbubb yi bari bari lu takkaay bari bari benn kër rekk nga mën a dëkk te su guddee li kër gi di yaatu yaatu benn néeg rek nga mën a fanaan li néeg bi di yaatu yaatu benn place rek nga mën a tëdd te boo tëddee nelaw xamoo ban waxtu nga nelaw te nelawee loo amoon fàtte nga ko soo deewee ñàkk nga ko ba mu des sa jëf